bëri itam dinañ gis ni que seen koom-koom am tax takku na ña fay nekk macha allah am na lu ñu téye waaye am na loo xam ne bu ñu leen ko daree teg ñu taxaw xeex ko mais sénégalais yi nag dañuy bàyyi trop. association consumériste yi ñu wéet ci loo xam ne quand même ça les concerne. d' accord Elimane euh, sànq rek Momar mi ngi koy wax ANSD 2012 wax nañu ni 51 virgule 3 pour cent su ma juumulee euh, ay ménages yoo xamante ni location moo leen soxal alors tey gis nañu ni problème bi dakaar la gën a méttee mais est ce que yéen tamit yéen ngi jot ay écho ci région yi ni foofu it euh, location bi cher na fa. waaw ci région yi déjà maa ngi nuyu Alioune Cissé bi nekk Mbour Mbour déjà am na problème. Hmm. Euh, Kédougou am na problème parce que côté Sabadola ak euh, euh, mines yi ñuy exploité foofu. location bi cher na fa trop. Saint-Louis bokk na ci secteurs yi cher éventuellement Kaolack am na tuuti mais région yooyu daal principalement fa la ñu am de représentants yoo xam ne ñu ngi ñu fay teewal di ñu jox defal ay feedback régulièrement et foofu fu mel ni Kédougou par exemple léegi dafay rivaliser presque ak Dakar. parce que pour am fa deux chambres salon suñu ki ñu fa nekkal nee na il faut débourser entre cent vingt cinq jëm cent cinquante mille xam nga loolu cher na ci Kédougou d'où la nécessité pour l'État de parce que moom euh, euh, Momar wax na ko sànq activité privée la commerciale mais dañ ko war a réglementer ku nekk gis ci boppam parce que man je dis que mu tuuti tey teew mu gën mu moo gën mu bëri te doo ci jot et cherté bi mooy waral kaaw contentieux yi di multiplier wu à n'en plus finir je pense que bu ñu ko defee de façon raisonnable ku nekk di nga mën a teg ci sa gafaka tuuti pour mën a jënd ci logement sociaux yooyu ñuy wax. bu ñu ko déggee mooy lan c'est-à-dire boo gisee Dakar ñu ne appartement deux chambres salon dans certaines localités. Mhm. c'est trois cent mille wala trois cent cinquante mille lan la war a toll. maanaam foofu noonu. loolu boo jëlee tey Yoff wala nga jël tey Nord Foire. Euh, mu doon ay quartiers yoo xamante ne proposition yu ñu defoon pour ay prix de référence. prix de référence yi obstacle bi moo nekkoon bu ñu nee fu mel ne Guédiawaye deux chambres salon warul dépasser cent mille francs par exemple mais dañ ne woon biir géejawaay mën nga fa gis kër yoo xam ne la fa nekk ci luxe ak la fa borom investir ëpp na cent mille francs mais bu boobaa on réajuste parce que bu fekkente ne par exemple euh, kër gi nga xam ne mu ngi nekk ci booru marché c'est pas bien desservi bokkul ak kër gi nga xam ne dafa nekk foo xam ne ci booru plage la c'est bien desservi matériel ba ko borom tabaxee parce que tim ñu waxante dëgg ñun ñëpp ay sénégalais lañ borom kër yi dañu investir seen xaalis bëgg yor seen njaboot bëgg liggéey mais liggéey bi tim na teg ci yoon parce que da ngay gis koo xam ne tabax na këram en un an mu ne dafay def amortissement bi teg lépp ci ndodd ki nga xam ne moom moo war a uti kër après kañ lay am kër te bu ñu basé woo foofu par exemple Euh, euh, mar wax na ko sànq matériel bi cher na ciment cher na déjà yokk nañ ko ne dañuy financer euh, les logements sociaux j'en doute mais bu fekkente ne loolu yëpp da nga koo da ci tenir compte bu ñu demee ci quartier yi gën a yàgg Dakar tey ñoo gën a cher mm-hmm. te pourtant ñooñu amortir nañ bu yàgg donc du la nécessité kii soog ak tabax mën nañ ko accompagner defal ko yenn facilité yi ki nga xam ne amortir na bu yàgg ñu imposer ko mu wàññi parce que jot na la lam ko defee woon tey dangay ngay dëkk ci kër di tabaxal borom muy yëkkati rek. Mhm. donc il faut que man secteur boobu je pense que état bu amee volonté politique comme ni ko Momar waxee dina ko régler mais lii problème bi nag mooy bëri na ci ñoom ñoo xam ne. nañ ko wax da de ñoom ñoom moom kër yeeg. mais est-ce que des fois du ngeen taseeg yenn locataires yoo xamante ne ni ñoom du ñu bëgg euh, topp mbir yi ba mu sës. mais bëri na et d'ailleurs c'est la majorité tey da ngay war a ñëw liggéey ci Sen TV nga dem. audience ñu leen la reporté nañ ko fekk nga waroon am reportage wala nga war a nekk à l'antenne mhm. mais doo mën dem tribunal léegi mhm. léeg dañ lay juger par défaut ne da ngaa bañ a fay moo tax ñëwoo ñu expulsé la dangay toog rek jot ordonnance d'expulsion te bu boobaa référé sur difficulté rek moom moo ci des te da ngay fay huissier bi bon am na ñoo xam ne pratiquement huissier yi rek la ñuy liggéeyal mhm. parce que boo fekkente ne expulsé nañ la ba ñëw pour génne si la am nga droit demander référé sur difficulté fay bi mu annuler procédure bi ñu relancer waat ko mais yooyu yëpp c'est de l'argent sur le dos du plus faible donc encore une fois ñun waxuñ euh, nañ teg kenn injustice mais nañ ko réglementer bu ku nekk gis ci boppam de telle sorte que salarié bi muy commerçant bi ku nekk mën a épargner dara pour mën au euh, euh, plus tard nga am nga am sa këru bopp alors pour pour wax ci leneen euh, Maman Diong gis nañu ni euh, Sénélec gis nañ ñaari point yoo xamante ne dañ ko fi teg c'est-à-dire nee nañu ko dañu am surproduction bay jaay courant yeneen i réew ñu ñëwaat encore ñu nekk def nañ bénéfice euh, vingt cinq milliards